borom Clair Vision di euh, Clédor Sène Clédor ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen di fay. Euh, waaw gan gi tamit am na pour nuyoo di leen remercier ci jotaay bi nga xam ni sama njëlbeeni jotaay la ak Sandiogou def naa ñuy doog a jàkkaarloo. Mm-hmm. ma am surprise bu agréable bi ma duggee ci locaux solution TV ma gis ni vraiment c' est du sérieux c' du solide c' du lourd. Mm-hmm. ma koy encourage di ko jokk ci soxna si xaw ma naka Indo. Fatou Indo wax. parce que vraiment euh, ça mérite d'être salué parce que imaginé wu mu woon ni euh, c'était si sérieux que ça mhm. euh, jaar naa ci plateforme yu bëri mais euh, niveau d'investissement bi mu fi gis ak l'organisation bi mu fi gis mhm. dal na xel euh, et ça suppose un certain professionnalisme kon chapeau et félicitations pour Solution TV euh, je vous devais ça samay nuyoo nag man dama koy njëkkee ci sama mbokk yi nekk ci prison yi parce que mes frères sont en prison. li mm-hmm. ciy jiital Ousmane Sarr bu nitu dëgg ak ñi mu àndal. Mm-hmm. Euh, mon frère Fadilou Keita euh, ñoom Amidia ak ñi mu àndal mooy waa force spéciale euh, di nuyu sama jarbaat moomu Mamadou juuf ñi nekk foofu. Mm-hmm. di leen dénk muñ rek parce que lépp ci nettali lay lay mujjee. ndegam man mii maa toog fii tey di wax. ñoom nañu xam ni lii jaar jaar la rek. voilà donc euh, euh, àddina amul solo. Mhm. dafa am yoon boo xam ni gàllankoor mun cee ñàkk. Mhm. te ñoom nangu nañ ko nag parce que am nañu moral bu baax a baax a baax. Euh, gannaaw loolu nag maa ngi nuyu ñi seetaan solution TV ak faj Walfadjri yëpp. Mhm. di fas yéene am ak yenn jotaay di leen remercier encore une fois ci waxtaan bi. Clédor fi nga njëkkee sax foofu la tàmbalee mooy nuyu nga leen ñaax leen mais aussi itam jaaj leen pour ñu muñ. mais est-ce que nii rek ngeen koy bàyyi semaine bu ne dina jàpp nañ nit te buñ lay jàpp da lay jàpp ci loo xam ne. jarut sax dóor sa doom. dëgg la ci tuuma yoo xam ne maanaam dëgërul. Mm-hmm. léegi ngeen toog ci plateau yi ñu ngi masaw ñu ngi nii rek léegi da ngeen koy bàyyi nii. Mm-hmm. alors que en politique dañuy wax rapport de force. Mm-hmm. maanaam état. xamul buur saay ne waaye buur dee na la xam. léegi ban taxawaay moo war ci ñii ban génne leen bu dee ku def dara ñu àtte la mais bu dee ku deful dara ñu bàyyi la mais taxawaay boobu da ngeen koy xaar ci yoon wala da ngeen koy xaar ci politique. ci ñaar yëpp lañ koy xaar parce que gis ngeen ko li def organiser na fi ay rassemblement yoo xam ne seen ay naataango sax ñëwal nañu mooy Mass Mbuub ak Mame Biram ak ñeneen ñoo xam ne day ñëw di ko fekkee pour parce que mbirum liberté la dafa concerné ñëpp donc am na kuréel boo xam ne au delà de COLIDEP ñu ngi nekk di ko sos pour société civile bi ak parti politique yi euh, joxante loxo def benn say pour xeex lépp luy liberté ak démocratie bi nga xam ne dañ ko commencé ndërmeelal ci dëkk bi. Mm-hmm. parce que euh, ay nit rassemblé wu euh, buntu kër Ousmane Sonko ñu buub ci quinze yóbbu ay retour de parquet place leen su mandat de dépôt ci jamono joo xam ne euh, ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour def na rassemblement ci même endroit bi. Mm-hmm. ba noppi proférer même ay menaces. du procureur du juge du ministre de l'intérieur du alkaati du gendarme mhm. ni Ousmane Sonko bu wuy jiwul dana mobiliser xaw ma ñaata millier de jeunes dem yeew ko mhm. yóbbu ko mhm. euh, maanaam liberté boobu ak provocation boobu ak deux pois deux mesures boobu da nga koy gis mu ngi mel ni rek keroog euh, Mambay ñaar fi mu defee woon conférence de presse en face tribunal ñun bu ñu fa taxawee di wax dañu ñu naan dem leen fële ñoom dañu am un traitement spécial donc euh, injustice boobu du colli rek moo ko war a xeex du ci plateau yi lañ koy dénoncer mais bu ñu amee occasion dénoncer ko aussi dañ koy dénoncer parce que dañu ne jullit bi bu amee lu ko naqari ci ñetti anam la ko mën a dindee ci dooleem loxoom plutôt euh, ci kàddoom wala mu mettitlu ko donc ñaari njëkk yi ci lañu nekk euh, ci suñu loxo ak suñu kàddu mooy action bi ak communication bi. donc léegi réaction bi nag. Euh, non action parce que fi mu nekk nii ñu ngi concerté wu ak force politique yi pour def benn say bu gën a yaatu ko dem nga xam ne bu ñu wàccee pour taxawal dëgg pour liberté nit ñi je crois que ñu dégg parce que aussi euh, mëne nañu fi benn combat euh, bi ñoom Pape Alé Niang nekkee prison bi ñoom Karim ak Cheikh Omar Diagne nekkee prison de façon récurrente mm-hmm. mais boobu société civile bi kese la moo tax doole ji des moo tax ñu bëgg ko gën a yaatal pour doole ji gën a bëri li ngay wax ni dafa méngoog li Ousmane Sonko doon woote koroog effectivement ñoo ci bokk gis-gis parce que euh, am na waxtaan yu yu ñu junj sax yoo xam ne formaliser guñ ko mais ci loolu ñu jëm te du yàgg. Mhm. Mhm. kon bu bu yàggul di ngeen jóg. incha allah dañuy créer cadre bi ba pare parce que il faut ñu créer benn cadre unitaire de défense de la démocratie et des libertés ak nu ñu ko mën ci tuddee ça va être un cadre. unitaire mais fi ñu toll fii ci démocratie lan moo fa yóbbu euh, euh, maanaam nguur bu ñëw. Mhm. fekk fi ay ponk yu yu yu yu benn ciment bu suudee ñëpp. muy toj di daj jël bireem ak marto chaque fois mu daj parce que 88 ba 92 dafa bëri woon ay contestation électorale mm-hmm. événement 88 yi ñëpp fekkee ñëpp ñu ngi koy fàttaliku. Mm-hmm. même bu ko ñëpp fekkeewul donc revendication yi moo doon processus électoral bi ñu defoon ay conquêtes ba tënk. code consensuel. code consensuel bu 92. waaw wàccee ci âge électoral bi jëlee ko 21 ans ba 18 ans. Mm-hmm. dugal isoloir amul woon. dugal identification de l'électeur maanaam kii voté mu mën a am photo ci carte moom ñu xam ni kii Sa la loolu amul woon carton lañ doon jënd bik lañ ko doon bindee lañ doon joxe couleur PS la woon verte donc loolu yëpp dañ ko xeex ba am ko Kéba Mbaye def ci liggéey bu mucc ayib mhm. kooku ku Sénégal war a sargal la code boobu moo folli Abdou juuf moo fal Ablaye Wade 2000 moo ko falaat 2007 moo ko folli 2012 mhm. Macky Sall ñëw jël code boobu soppi ci lu ko neex L cinquante sept L trente L vingt neuf yi ñuy jooy nii pour di mën a tànn kii nekk candidat ak kii voté ñu ni déet ne waay carte électeur bi nga xam ne woon à la woon ak carte d'identité à part mu faase ko mhm. indi benn carte d'identité bu bees boo xam ne ci gannaaw ga mooy carte électeur bi mhm. te carte d'identité bi amul turu ndey amul turu baay boo nee Moussa Ndiaye du ñu xam ban Moussa Ndiaye la doomu kan ak kan la te loolu renseignement d' identification la boo xam ne nekkul ci lu ñuy tuddee carte d' identité parce que loolu c' est un renseignement essentiel d' te képp ku bindu pour wut carte d' jël nañu sa numéro donc ñoom am nañu répertoire téléphonique bu ñu link ak carte dante yi parce que imposé woon nañu nit ñi ku nekk mu dem identifier numéro am wala ñu dagg pisam mhm. ca gannaaw ga lañ ñu laaj parce que képp ku déposé buy fat buy bàyyee xel rek laaj nañ ko numéro am te mhm. woo kenn donc yooyu ay paramètres yu may ñuy segg ñi ñu ñeme ak ñi ñu ragal pour bind seen gannaaw pièce non inscrit sur les listes électorales kooku muy benn muy benn ciment bu mu daj ñaareel bi mooy constitution bi ñu boole. te El Hadj ni président mooy gardien de la constitution koo xam ni euh, article vingt nee na nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs euh, ñu laaj la ndax da ngay présenter waat nga naan nii oui nii non ba noppi ñu lay investir à gauche à droite ak yi ngay posé yépp jëm ci troisième candidature kon jëm ci violation constitution bi nga xam ne ay problème rek la mën indi mhm. loolu aussi lenn lu mu dàjj la article 60 bu constition bi prévoir que député bu démissionné ci partem day ñàkk mandat am dañ ko xotti ci Mimi Touré parce que Mimi Touré euh, parti falu ko coalition de parti moo ko fal mhm. parce que Déthié fal ba mu démissionné réew mi mhm. dafa sax créer parti politique mais dafa garder mandat am kon deux poids deux mesures yooyu foofu tam ci constitution bi la jëm boo ñëwee ci liberté yi 2021 doon nañu xeex modification code pénal ak code de procédure pénale parce que ay liberté dañ ko aj ci attey terrorisme gis ngeen imam Blé Keroog euh, euh, dafa dafa prêché ni képp ku résister pour défendre sa réew boo ci deewee da nga shahid mais loolu diine ko wax mhm. euh, bëgg sa réew ci imaan la bokk loolu loolu loolu woy la ci jullit yi loolu xam nañ ko donc loolu ñu ni ko apologie du terrorisme ñuy fàttaliku imam Alioune Badara Ndao mhm. loolu lañ ko ji ñoom tëj ko fi presque trois ans après mujj koo setal ni deful dara kon day yomb tey jii assan Diouf bi ñu koy jëlee États-Unis dañu ne américains yi terroriste la tuuti ñu rey ko mhm. Tunkara bi ñu koy jéem a indi dañu ni terroriste la donc loolu dañ koy jëfandikoo di ko mbubboo ba assemblée nationale française indi ci ay taxaw seetlu pour gouvernement France tey ci li ñuy yéegal ci terrorisme Sénégal pour tek ay daan ay opposants politiques loolu yëpp ay reculu liberté la liberté d'expression Sandiogou lu muy def forme de journalisme la la satire xaw ma nu mu koy waxee ci olof euh, euh, euh, xibaar bu ànd ak kaf bu buy jàll facilement la satire maanaam kaf ku làq dëgg quoi. voilà voilà bu làq dëgg. forme journalistique la. parce que amoon nañ fi ay journaux yu tudd Cafard Libéré euh, politicien ba léegi Omar Dia mu ngi def ay ay ay dessin ay satire mm-hmm. gisoon nañu TFM le journal Rappé mm-hmm. gis nañu Kouthia lu muy def gis nañu Sandiogou lu muy def loolu forme journalistique la mm-hmm. parce que ci biir humour boobu yaa ngi yaa ngi joxe information wala yaa ngi interpréter information euh, Papito Kara ak Ousmane Diagne n'ont pas fait autre chose euh, seen seen une ñu déformé ak yooyu kooku c'est une forme d'expression loolu waruñu ci toppee nit instruction loo xam ne lu flagrant la ñu toppee ci nit instruction fekk lu jiitu loolu Macky Sall nee na ay ñu nekk seen gannaaw ordinateur yi di kàcci kàcci xaar leen rek bés dina ñëw. jërëjëf euh, Clédor ma jox saa. Euh, macha allah euh, kii bi am na solo. taxawu hmm. seetlu bi. Hmm. mais man man mbàkke gi nga xamante ni gi ñu ngi koy waajal mbàkke gi dafa mel ni waa APR yi ñu ngi ciy bëgg a xëpp suuf parce que sëriñ boobu gis naa ko mu def ab annonce am nee na ci même lieu bi. Hmm. même jour bi la 10 fa la war a amal li nga xam ni mooy mitinam ngir investir président Macky sàll pour élection yi nga xam ni moom lañ jëm xajamal googu nan ngeen ko gisee ginnaaw bi nga xamante ni bi Pastef annoncé na bu yàgg ne le 10 Mbàkke ñoom ñu commencé def seen ban démb. waaw xam nga foofu la ñuy xamee. Mm-hmm. ndax commandement territorial. Mm-hmm. maanaam préfet yeeg gouverneur yeeg sous préfet yi. tëddee nañu njaaxaanaay ou pas parce que sëriñ boobu ngay wax. moo mujjee yëglu. fekk na ñële jàpp seen bés ba pare. li leen tiital mooy peut-être mobilisation bi amoon Kër Massar. parce que bayaal bi ñu prévoir Mbàkke boobu bu feesee moom. day doon message boo xam ni day génn Sénégal. dafay am signification. te waaw te euh, dañ ko def challenge mu nekk mobilisation Pastef kese. Mhm. et non Askan bi mhm. donc loolu politiquement. Euh, euh, Sonko mu ngi wane poids am euh, léegi loolu lañ ko bëgg a xañ parce que xam nañu ça va être une réussite léegi nag bu fekkee ni l'autorité maanaam lu gouverneur seetaan na parce que mënul joxe autorisation ñaari manifestation ci même endroit mënul layal aussi ni comme am na ñaar ñu demandé munu ko fa joxe parce que day bañ confrontation parce que am na ku njëkk a déposé waaw am na ku njëkk a déposé donc loolu mënul nekk lay parce que ñun daan nañu laaj obélisque ñu naan am na ku déposé ba pare. dañu daan njëkk a déposé ñu bàyyi donte lay la mais lay bu ñu mën a teg fenn la mais bii nag amul fu ñu ko mën a teg bu fekkee ni jàmm la ñu bëgg. ñu ngi dellu ci respect des libertés yi nga doon wax xam nga ci liberté d'expression laa mujjee woon. Euh, rassemblement c'est une forme de liberté d'expression. Mm-hmm. garanti par la constitution article huit moo ne bépp mën na fësal xalaatam ci xalima ci kàddoom. wala cib nataal tout citoyen a de droit d'exprimer son opinion par la plume l'image ou la parole kon tey jii lii forme d'expression la boo xam ne waruñu ko gàllankoor on ne en politique Macky Sall bu ngay dem Thiès ne day def xaw ma ay ay mbumbaayam ay ñoom ñoom bu ñu mënee loolu kay mais opposition bi nag xanaa war nañu mën a mën a mën a mën a def seen seen ay rassemblement ñoom tamit waaw seen mais seen ah. Pikine Pikine fii kenn sonnalu leen def nañu def nañu lu ñu bëgg kenn sonalu leen wax nañu lu nekk kenn sonalu leen léegi li lourd de danger mooy mm-hmm. euh, provocation provocation boobu comme Pape Malick Ndour ni mu def comme sëriñ boobu euh, sëñ Modou. du Baara Dolli loolu muy def mm-hmm. provocation la te dëppoowu ci sax ak waa partem yëpp parce que partem am na ñoo xam ni ànduñu ci loolu moom da cee wéet donc tey jii ku bëgg lu neex Macky Sall ba bëgg a xajamal démocratie. Euh, je crois que dañ nga ciy am part de responsabilité rawatina nag. Euh, léegi ñuy wax ne am na ñuy wax naan euh, waa Pastef dañ leen a war a bàyyi parce que ñoom préparé wuñ ko tànn beneen jour samedi noo gisee wax jooju. am na ñoo xam ne ñu ngi wax loolu naan dañ nañ ko bàyyee vendredi bi tànn samedi parce que fi mu toll nii am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi waaj mais fi mu toll nii est-ce que ruube googu muy def. Mhm. du tax ñenn ñi am ñoo xamante ne bi dinañ ne est-ce que dem wóor na wala wóor est loolu tamit. Euh, ah, mënu ci loolu loolu bokk na ci objectif yi. parce que meetingu Kër Massar bi aussi. waaw euh, jour bi ñu ko jàppoon. waaw euh, dañ ko décalé ba le lendemain. Mhm. parce que ñoom tam dañu dugaloon ni même place boobu la ñuy def. ñu ñun bàyyi leen fa décalé la lendemain. noonu la demee woon. Mhm. mais bii. Mhm. mënul demee noonu parce que dafa leer ni Pastef moo njëkk a déposé. wax nañ ko communiqué nañ ci. annoncé nañ ko déposé nañu. Mhm. kon tey jii euh, autorité bi amul fenn fu mu sukkandiku pour bañ manifestation boobu su prétexte que dafa am ñeneen ñu fay organiser parce que ñun ñoo fa ji jiitu. kon loolu mënul am benn conflit léegi autorité euh, maanaam autorité bi la ñuy déglu. Mhm. gouverneur ba ba xam lu muy wax parce que normalement euh, fii ak suba. autorisation bi war na wàcc. donc nit ñi daal ñoom ñu ngi pare. donc provocation euh, euh, mën nañ ko moytu ci politique ci jamono ji nga xam ne les nerfs son tres très très tendus mm-hmm. donc euh, lépp lu ñuy def rek war nañ ci sooraale jàmm ah waaw war nañ ci sóoraale jàmm parce que dajaloo wax sa xalaat ci démocratie la bokk ci constitution la constitution moo ko garantie mm-hmm. Clédor dina dégg nga wax ni nga xam ne yow yaay leader du mouvement Claire Vision mm. donc léegi mouvement boobu kon dafa bokk ci li nga xam ne rek moom moo di Pastef moo tax ngay liggéey ak ñoom. non non non mm-hmm. non non non c'est-à-dire euh, Claire Vision mouvement citoyen la. Mm-hmm. boo xam ne gindi askan bi la sant Claire Vision gindi askan bi boo xam ne day communiquer ci koom-koom yi ñu am Sénégal euh, ressources naturelles yi problème mu développement problème mu économie parce que pàcc boobu dafa xaaw tumuranke ci ci penc bi. Mm-hmm. ci débat public bi euh, mais bokkul Pastef. Ah, waaw ci élection yi législative yi adhéré woon nañu Yewwi Askan Wi. comme ni force citoyenne beneen euh, mouvement citoyen bu sama sœur may mën bu busu jiite bokkee yeewi askan bi mais force citoyenne du membre euh, Pastef donc euh, mën nañu liggéey en coalition loolu coalition la mais mais taxul ñu nekk membre Pastef. ndax da bokk vision. waaw léegi Pastef nag dañu bokk yoon am na lu ñuy wax évolution en Y xam nga Y dafa def benn V ak benn genn léegi yii day jóge point A jóge point B ngeen rencontré wu ci ci point V bi mhm. génnu Y bi mooy yoon bi ngeen bokk su ngeen atteindre seen objectif da ngeen di remonter sens contraire après ngeen teqali ko ku nekk delluwaat. mais mais kii Clédor ki xam na ni temps bi lii euh, foofu sax laa la bëggoon interpeller mooy ci wàllu bonne gouvernance mhm. yow ci nga ëpp li ngay wax ci pétrole mhm. bi gaz bi rapport Cour des comptes bi tuddoon nañ ko fi ci wàllu Covid 19. gis nañ procureur mu ordonné pour que ñu ubbi enquête dem dik am ñu ne day day day day maanaam day kii rek euh, jafe maanaam jafel jël bi quoi parce que yoon mënoon a def liggéeyam directement waruñu dem euh, dikk euh, wa affaire Prodac Mame Mbaye Niang aussi tamit mi ngi dem ci yoon ci loo xam ne dañ ko ko ji mu miim ko hmm. ci wàllu bonne gouvernance rapport Covid 19 bi. Hmm. yow ban xalaat nga ci am ak jéego yi ci procureur la. xam nga ay jalgatee ki sàcc ki détournement yàgg na Sénégal mais bii da cee gën a metti askan bi parce que dafa nekk ci jamono joo xam ni dañoo dañoo tëj. të tëddi leen ñu sàcc. waaw di ñu dóor ay guddi xam nga pour ñu tëddi. te jamono jooju ñu ngi ñuy dóor en même temps ci suñu alal. boo xam ne am na pàcc boo xam ne lu jege vingt milliards. Mhm. nit ñee ko cotiser bokk na ci chegu sëñ Muntaxa bi. Mhm. plus lu ñu leb ci suñu tur gàll ko suñu ndol moo tax ñoom ñu dem woo bailleur de fonds yi di leen expliquer mhm. woo société civile naan leen li ñu sàcc bu bëriwul matul sax sept milliards <laughs> et cetera alors que ah ñoom nangu nañ ko ah. mais nee nañu ah, la ñuy wax tolluwul foofu ah, mais nee na ay six milliards et quelque la rek ay matul sax un pour cent ci ci milliards yi xam nga loolu aveu la uh-huh. mhm. léegi euh, euh, euh, rapport Cour des comptes boobu nag dafa ànd ak ordre de poursuite conclusion bi dañu ne nañ ko jébbal yoon bu def liggéeyam léegi bu fekkee ni yoon dafa dafa dafa la mhm. le maître des poursuites mooy procureur ñu dafa bëgg gën a xóotal gën a leeru ba yóbbu ko dikk xayrun ñu ngi koy xaar mais fàttali benn parenthèse rek dossier Petro-Tim Aliou Sall man mii woowoon nañ ma dikk naan ay xaw ma appel à témoin ak yooyu fa la dossier bi mujjee nax saay ah. mujjee ci noonu. yow yóbbuwoon nga ay documents waaw gars yi bañ <laughs> gars yi ni ma non ubbeeguñu ubbeeguñu dossier bi mën leen waa tey leen versé leen ko au dossier buñ ko tijjee ngeen dugal ko ci ñu ne ma non foog ñu xaar ndigalu procureur sama cartable laa yóbbu suba teel maa fa jiitu xam nga ñu wàññee ñu wàññeeku kon tey jii bu ñu bu ñu sollicité di ah. mën nañ ci am sax yaakaar mm-hmm. parce que euh, am na ay ay ay PV yu ñu déglu ay nit ñoo xam ni par exemple. ministre bi nga xam ni bés bu nee mu yónnee ñu retiré ko cinquante millions cent millions. loolu ñu tënk ko ci rapport mu leer. bu fekkee ni malgré loolu soxla nga dig enquête ci loolu. te mu am ay këyit yu wane ni am na retrait bu ñu def. ci turu nangam tel date tel jour tel kii. am na compte bu ñu tijji ci banque boo xam ne bokkul ak banque ya ya état bi di dugal seen xaalis parce que état dafa am nu muy doxee. Mm-hmm. bu fekkee ni loolu danga ci soxlu ak leerlu tamit. Mm-hmm. ah ñu bàyyi la rek di la xaar fooy mujjee. parce que li nekk ci rapport bi wax dëgg yàlla mu ngi ci place publique bi ñëpp am nañ ko mm-hmm. léegi justice la ñu xaar mu exercer wu ñun nag du ñu wax procureur nu muy defee enquête am nañ ko bàyyi mu def euh, enquête préliminaire mm-hmm. mais fi may man ñi may interpeller mooy opposition bi parce que askan bi dafa yëkkati quatre-vingts députés teg seen loxo mm-hmm. nañu taxawal haute cour de justice parce que am na ñun ci tudd ñoo xam ne dig mënu leen entendre les ministres ah. Mansour Faye xel xalaatul oh. muy dem di wuy ji kooku haute cour de justice moo ko war a woo moom ak Moustapha Diop ak i moroomu ministre am euh, le ministre de la santé là euh, te ñu folli ko Diouf Sarr mm-hmm. ak yeneen ministre yi ñu ci tudd yëpp ak ak même ministres yi nga xam ne dañu bokk ci beneen càcc goo xam ne dafa leer nañ muy euh, facture quarante cinq milliards d'armement yi nga xam ne mm-hmm. Abdoulaye Daouda Diallo moo ko moo ko avalisé moo ko moo ko approuver Abdou Karim Sall Abdou Sall mooy ki sàccoon suñu kéwél yi euh, moom tamit. Euh, mu ngi ci biir loolu muy lu lu leer. Mm. donc ñooñu haute cour de justice moo leen mën a moo leen mën a woo comme ñun ñoom la ñu jox suñu kàddu. Ah. jox leen genn wàllu assemblée nationale lillaahi wa rasuulihi nañu taxawal haute cour de justice woo kilifa yooyu parce que fi mu nekk ni opposition am na pouvoir législatif mm. am na pouvoir local kon na ko exercer. pour euh, demande citoyenne bi. d'accord euh, affaire Mame Mbaye kii bi. bon Mame Mbaye Niang euh, c'est le voleur qui crie voleur. <laughs> waaw parce que xam nga nit ki. Mhm. ñu tuumaal la. waaw. tey nga ni rapport am na suba nga ni rapport amul mais ñëpp xam nañu rapport am na moom ba muy démissionné ñëpp nga ngi koy fàttaliku. ba mere fi Amadou Ba. Mhm. mais après Macky moo ko fat def ko chef de cabinet. Mhm. loolu man Prodac. Euh, dama ci joxe benn exclusivité bu bokkul ak enquete bi mhm. bu fekkee ni ñoom dañoo set ci mbirum Prodac mhm. Clédor nee na ñoom jaay nañu gouvernement Sénégal état Sénégal dix pour cent bi Sénégal waroon am d'actifs supplémentaires ci ooru Sabodala mhm. en 2016 maa ngi koy wax boobu ba léegi te boobu moo gën a lourd comme accusation <laughs> jaay nañu dix pour cent d'actifs supplémentaires yu Sénégal waroon am à cinq milliards dix millions de dollars jamono jooju mu ngi toll woon ak cinq milliards léegi six et lay doon ba noppi dugal ko domaine agricole communautaire bu Itato Itato dëkk bu nekk Kédougou la. mooy dagg cinq milliards boobu. Mhm. ci vingt neuf milliards yi seey la bokk. parce que domaine agricole communautaire boobu dafa waroon am quatre vingt deux de pisciculture mënuñu sax réaliser trente. dafa waroon produire cent mille tonnes de maïs. mënuñu produire sax trois mille te matériels yi ñu wax ni moom lañ fay jënd pour def fa dara nekku fa. loolu man maa ko wax clairement mu une accusation formelle. am nga ci preuve yu leer nañ xam nga man man bëgguma dem kaso. Oh, man sama bopp maay dem. gëstu di xool euh, waaw. Mhm. waaw fii ku fi wax lu la leerul. Ah. diffusion de fausse nouvelle. looloo tax diffamation mais moo lëmb réew mi lii ma wax nii. waaw dañ ci am lu leer nañ ko dégloo xel. waaw parce que mënoo tuumaal état ni suñu or 10 pour cent. jaay nañ ko dugal ko domaine agricole communautaire bu Itato mu seey. nekk ca Kédougou. waaw te du dugguleet laa ko wax kon tey ji ñooñu bu fekkee ne dañuy porter plainte. Mhm. dañuy politique. Mhm. parce que Birahim Seck bind na ci livre. kenn porté wu ko plainte. Mhm. c'est que Ousmane Sonko la ñu singali rek. dégg naa sax am na yeneen plainte yu ñu koy waajal. Ah, xam nga am na benn alkaati bu plainte encore. moom la ñu moom la ñu singali rek moom la ñu bëgg a yóbbu ardo rek c'est tout. mais fii ngay gis ay sàcc yu jàppaate Sénégal la am. parce que man loolu moom. mais Clédor li ngay wax dafa wuute ak li génn ci rapport fondation Mo Ibrahim bi ñoom danoo jël Sénégal def ko élève bu baax ci wàllu bonne gouvernance waaw léegi yooyu am na ñu ne ay tappale la gars yi ñoom ñooy jënd rapport yi wala lii nii mais ñoom danoo jàpp ni Sénégal mi ngi góorgóorlu ci wàllu boobu. mais rapport Mo Ibrahim am na benn bu ko jiitu. mooy bu classé Sénégal euh, ci pays yi ëpp corruption ci monde bi. Ah, boobu moo jiitu rapport moo Ibrahim ay rapport de de bonne gouvernance yu ñuy lijjanti la mais kuy dund Sénégal xam nga ni bon gouvernance bokkul ci état boo xam ni chaque jour ay rapport génn euh, euh, Seynabou Ndiaye Diakhaté ba muy def passation de service ak Bassirou Gueye nee na ko attention bàyyi naa fi 73 dossiers avec ordre de poursuite yoo xam ne dañ ci joxe ndigal pour ñu topp ñi ñi ñi ci tudd te dossier du concerné benn nit. xool ngeen rapport cour des comptes bi ñaata nit ci nekk. léegi imagine 73 dossiers ñooñu est-ce que xaj nañu suñu kaso yi. ñooñu xam nga foog ñu wutal leen ay kaso. tellement dañoo bari donc loolu mooy bonne gouvernance bu dee loolu mooy bonne gouvernance euh, c'est le monde à l'envers sans compter nag ñiy réeral ay 890 millions seen kër ak ay ay bonne gouvernance amu fi waaw ah, donc. Euh, mais ngay tëjee Clédor bon li may tëjee daal. Hmm. mooy euh, Sénégal euh, dafa nekk ci tension boo xam ni ku ko wax ak ku ko waxul ñëpp a ngi ñaaw njort ci li ci suñu kanam te dara indiwu ko lu dul ñàkk sàmmoonte ak constitution bi nga xam ni moo ñu liyee mooy loolu ñu liyee nga xam ni mag yi mu ngi koy dajji ndànk ndànk ndànk ndànk ndànk ba noppi ñu ngi bëgg a tànn ñiy voté maanaam. Euh, ndaw yi comme ñemewuñu leen seen gannaaw carte d'identité dañ ciy bind non inscrit sur yi L30 comme un mois sursis doo bokk L57 ni woon tout sénégalais peut concourir au suffrage universel ñu ni tout sénégalais électeur yokk ci électeur daal lay galgal L30 boo amee un mois sursis doo bokk kon doo mën a présenté wu pexe yooyu ñuy def pour tànn ñiy présenté wu ak ñiy voté moo mën a indi musiba ci réew mi parce ñoom bu ñu gis ni tere nañu Karim Wade mu bokk kese gisuñu ñu nekk ci gannaaw Karim Wade gëm ko gëm PDS bëgg a voté ñu leen yeen bokk leen bu ñu gis xalifa sàll kese mais nañu nañ ci nañ ci boole des milliers de sénégalais yu nekk ci gannaaw Khalifa sàll gëm ko bëgg ko woteel ñu ni kiiru bokk noonu la ñuy juumee ci Ousmane Sonko parce que benn jëmm lañu ñu topp te xamuñu ni masse bu importante moo nekk ci gannaawam ñooñu boo leen exclure du processus électoral lu ci am danga nga koy jiiñ Sonko alors que yow gisoo ñin mbooloo mi nekk ci gannaaw mu nga xam ne dañu bëgg exprimer seen volonté mm-hmm. nga ni leen du ci dal loolu c'est lourd de danger parce que dama fekkee fekkee waat loolu daal lay ñaan yàlla mm-hmm. mais ñaanal Macky Sall pour la première fois nag yàlla roof ko tuuti ngor ba mu xam ni nguur kenn du ko ñett comme Senghor mu respecté constitution bi delloo Sénégal Sénégal ci jàmm bi mu ko jëlee woon euh, ñu continuer gérer suñu réew surtout que dañu toog ci yoonu naataange parce que ñu ngi jëm ci suñu première gouvernance pétrolière ak gazière décembre deux mille vingt trois fii te loolu ci dal ak jàmm la mën a nekk yàlla na ko yàlla xiir ci jàmm yàlla na yàlla teg Sénégal ci jàmm. Mm. merci beaucoup euh, mm. Clédor Sène ñu koy jaajëfal bu mm-hmm. baax euh, li wolof fi naan xam-xam xaw ma bokk ci. te li ko indi yëpp mooy day documenté wu des fois ma gis ko tooñ ko nag Clédor ay kayitam mm-hmm. bu ko gars yi daboon rek nangu kayit yi ah <laughs> mi ngi noonu. <laughs> <laughs> <laughs> foo ma fekk maa ngi woon a kartaab saa saa yi ma ñëwoon ci plateau comme gaa yi dañoo ñemee weddi dama daan indi ay firnde waa léegi léegi damay léegi yëpp sama puce bi nekk fii laa jaajëf Clédor euh, seen njiitu Clair Vision su ko kon euh, ñu koy di ko sant kon di la jox delloo kàddu gi